ma faf ko jaare noonu rek waaw waaye sant yàlla rekk la mhm. ndax itam atu yàlla gisuloo njaboot yi yaa ngi ci sa yitte ñoom ñu ngi ci seen yitte ba bisu tey bi daje kenn mànkewul liir yi nàmp sax ñu indi leen ñooñu boo leen xoolee ak seen enthousiasme ak seen yitteeg seen farlu nga yëg ni sa jëmm gi moo leen fi bàyyi wallaay bu sa rangooñ waddul nga xam ni kon war ngaa seet sa bopp waaw waaw dafa tolloog nag sunu borom du juum noonu la tërale àddunaam na ko góor gi waxoon fa taratan tara yusran wa taratan uxra tara usran kon nag fa inna ma al usri yusra waaw moo tax rek lu yàlla indi rek nga jël ndax li mu góor gi waxoon ni yàlla man xarit ndax lu mu diis la yan yan la ko waaw waaye l'essentiel mooy nga nekk xaritam waaw bu ko defee kon nag njaboot gi sant leen maa ngi ko wax ci suba taxawaayu maam capitaine ak ay frère ak i cousin ak ñi mu bokkal ci MG bi taxawaayu soxna Fatima ak yaayam ak ñi mu bokkal seen groupe yépp ah boo ci dee xalaat dangay sant yàlla lool ndax boo amul woon ñu mel noonu yow yaay summeeku pour defal ko sa bopp waaye kon dafay mel ni sonnloo pour sa kilifa ndax ku sonn ngir sa kilifa yàlla am lu mu la fayee waaw bu ko defee kon de ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaanal képp ku ñu bokkal yëf yi yàlla may leen ñu guddi ci fan te yàlla yokk leen ci barke yàlla yokk leen ci sutura ñu ngay sant ñépp ku ne xam na ni lu mel nii kese kese defu ko njaboot yi mobilisé wu kenn ku ne à sa ñu bokk ci dayra ak ñu bokkul ci dayra ñi amee parti politique ak ñi amee yeneen regroupement yooyu yëpp. léeg nga gis sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj gi nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan la waaw dafa am ñoo xam ne fii ci Sénégal boo jógee ni ci Moustarchidine yi laa jëm luñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru ko mu Moustarchidine soxlawul kenn ndax yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ne da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le coma ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Wade Khalifa Babacar Wade ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé Niang parce que ci de leen la ñu jëm te ëpp na bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu ci sax du demati këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jaar gannaawam def leneen waaw kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rekk moo ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa ni lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew dinga nga am loo comprendre waaw mais yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rek am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma waaw ma lànk kenn waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon bu dee doo ma recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla binde la leen yàlla binde mais ñun sunu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw bu ko defee kon nag ñu tudd Yewwi Askan Wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defee yàlla rekk a ko fekk